mais sénégalais comme xar comme xar dem ci tooli sëriñ yi di di liggéey sacrifier sa vie ñoom duñu leen may seen doom Akhenaton lu mu wax na dëgg amul benn sëriñu mbàkke mbàkke tey muy may doomam Mister Shake amul waaye tey su ma doon taalibe benn sëriñ ma am doom bu rafet sëriñ bi dafa naan jox ma sa doom ji waaye ñoom seen doom duñ duñu sëy ak ñun ñu def ñu comme ay xar loo am jox bu ñu yemoon si loo am jox leen sax mu neex waaye léegi dañuy dem ba naan la bul votel Sonko bu leen top politiciens yi te xoolal am na ñoo xam li sëñ Abbas Abdou Khader wax loolu noonu lañ koy defee bu leen topp sëriñ bu leen topp Sonko parce que Sonko vingt ans rek la fiy def vingt ans la fiy def su booxul ma Macky Sall fi vingt ans Sénégal dañ koy changer par force te Sénégal président Mouride du ko jiite président Mbacke Mbacke du jiite Sénégal man mourid la dé dama len wax lu lèr mourid la mais affaire confrérie yoy ñu bëgg ko bëgg duggal Sénégal du fi dugg parce que Sénégal da fi am ay tidiane dañ fi nek ay chrétien dañ fi nek ay ñassène dañ fi nek ay ay ay omarien nek fi Macky nak moy jéem diviser Mouride yak ak omarien yi moo tax Mouride yi Macky Sall parce que Macky Sall dafa raciste raciste raciste ba léegi sax dafa bëgg jël Omérien yi sax la bëgg jël teg ko ci kaw murid yi moo tax Touba Macky Sall du def troisième mandat parce que Touba xam nañ ne Macky Sall Omérien yi la faral sëñ Abdou Samad génnoon na ko fi mu wax ko fi mu ne ñu Sénégal xamuñu Tukulóor xamuñu Joolaa xamuñu Séeréer xamuñu tarixa waaye Macky Sall moo fi indi yëfu tarixa mais dafa pour muy leer ñun ay murid la ñu de mais Touba manœuvre yi ñuy jéem a manœuvrer manœuvre yi ñuy manœuvrer pour ëllëg si biir.

murit ay ay baara dolli baaru dolli yooyu wóoluwuma ko kooku ndax moo ñu naroon a rey ba ñu dee sëñ Abdou Mbacké baaru dolli mu jege woon Sonko aji saar Sonko di xeex assemblée wooy Sonko Sonko lii Sonko laa Touba liggéeyal Touba lay liggéeyal la preuve bu dee Sonko jaral na la ko yeewu askan bi lu ñëw nga bok man fofu la commencé def attention ci ci sa Abdou Bara dolli yàgg naa wax sax ne mom moy interprète bi yàgg naa ko wax sëñ Mbacké Abdoulaye Daaru dolli fofu la sëñ Mountakha doon jaar ak ak ak ab Abdou Mbacké pour wax Sonko arrêtel marche Sonko signeel pacte de non violence waaye sëñ Abdou Bara dolli dafa feeñ dafa feeñ xam nga kañ la feeñ mom Golor Yàlla PDS la xam nga kañ la feeñ mooy yow askan bi ba mu ñëwee moom dafa waroon jël responsabilité bu dee patriote la mu bàyyi Pape Diop mu bàyyi Pape Diop parce que Sénégal ngay jël nga teg ci sa kaw sëñ ba baar dool dafa waroon bàyyi Pape Diop ñëw ànd ak Sonko mais déedéet moom dafa ne yow askan bi sax day tas loolu la waxoon yéen a ngi fàttaliku moom bu yemoon sax ci ne bokkuma yeewu askan bi mais dafa ne yeewu askan bi day tas parce que loolu la bëgg ñoom ñoom yeewu askan bi jël jël nguur bi arrangé wu leen. même sëñ Bass Abdou Khadar Sonko jël nguur gi arrangé wu te pourtant sëñ Mountakha nee na Sonko dama laa amel bor waaye lu ñu ameel bor amel bor Sonko ñoom Sonko dofuñu Touba xam nañ ne Macky Sall pare na ñoom ñoo bëgg foqati yëf yi jël ku mel ne Madické Niang ñu teg ko ci réew mi bopp réew mi wala ñu liggéey ak tan Sall kenn ci benn Bokk Yaakaar koo xam ne après day ñëw liggéey ak ñoom. waaye loolu du jàll bu dee ñoom Sonko dëggal nañ seen bopp loolu du jàll ku fi jéem a rey sonkoo nag parce que da ngaa bëgg APR toog fi wala danga parce que Sonko dafa bëri ay ennemis Macky Sall du rey sonkoo de kay sof bu jógee di ñu wax Sonko lii Sonko laa Casamance Guinée Bissau Macky Sall du rey Sonko jamais keneen moo ndara rey Sonko koo xam ne. Sonko nekk président arrangé Nous, na nous, Sonko mais pas Macky parce que Macky doful xam na ne bu Sonko dañ koy Ray Macky Sall xam na Sonko dañ koy Ray américains nous ko mere français nous mere ndax toto yëpp la taal taal taal toto yëpp Macky Sall du Sonko moo désespéré lu mu dugg Macky Sall bu demee ba ñuy wax ceebu jën gars yi nee naa leen jaajëf Salem Ndiaye man loolu ba mu ko liiree damaa yëngal sama bopp avant Sonko di ci wax ceebu jën bi te Seneweb lay utiliser di